waa sëñ bi dama ko ne daaw sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa daje woon nañ fii ci ci ki yëf yi muy doxaluk taalibeem nangu nangu ndigal ba muy jox addiya sëñ baara daa laxasaayoon daaw ba ñuy bëgg a màggal nag sëñ bi ne bu safar teroon na dem ca penku su jumaa ja ngeen fekk ko ñi jàng fay xasaayit fanaan fa ba suba laa leen ni ni nguur di def de sëñ biir de xawma seen biir waaye daa mel ne passation de service lañ doon def te loolu ma doon wax yàlla def na passation de service sëñ Muntaxa da ko doon joxaat sëñ sëñ Abdou sëñ Cheikh Mati lay da ko doon jox sëñ Muntaxa yoonu yoonu sëñ Touba waxtu wu ne dana seet ku ko mën a yor mu teg ko ci say loxo dama leen ne nun taalib yi leen dëggal dëggal doo ngay leen dese mooy mooy leen war itam te li sëñ bi santaan def ko Cheikh Ibra dane woon ab taalibe bu sëñ Bàmba meree nan naaj bu soxlaa nu ñaq mooy dëgg joxe sunu ñaq am ñaq dee su ko moom ci jëw jàmbur li sëñ bi santaan waaye denc lu bari ba noppi fab lu tuuti jox sëñ bi damaa daje woon ak waa joo xam ne day wër jumaa ji ne dañ koo tax 2 millions ma ne ko loo loo teg ci barab bi mu ne ma ñaari téeméer ma ne ko ñaari téeméer booy suñ booy dugal fii suñ tubaa ñaari millions yokku na woon a jox loo ko fa yóbbu nan sax ci taali bi sax ci jub toj suñ xol yi nangoo jox suñ tubaa addi yi Cheikh Ibra da doon alal yi sëñ Tuubaa laaj soxlawu ci dara waaye fu alal nit nekk ab xolam ne fi te xol yi la soxla xol yi la soxla ilaa man ataala bi xalbin salim ak xol xalbun mutmainatu yooyu yi la sëñ bi la sëñ bi soxla daa bëgg a defar xol yi moo tax mu di leen laaj alal yi ndax fii ne dëkk boo dégg na lakk na banque ba sa alal ne moom da nga laaj ba xam egg na fa am déet na sëñ Tuubaa di suñ banque jërë ngeen jëf